Sénégal dañoo baaxoo ci rajo beeg télé bi di jooytu di ñu gëmloo ne ñun suñu réew day tàkk suñu réew dara doxul suñu réew dara newu fi suñu réew yeneen réew yi lañ tane wax naa leen réew yi nga xam ne ci koom-koom ñoom ñu ñooñu tane te ñun li ñuy def ci suñuy ndaw li ñuy def li ñuy def ci suñuy étudiant moo tane foofu donc li ngeen war a xam war xam mooy ñu bañ a dox seen mayin wax naa leen ko keroog Sénégal réewu xéwal la dëkk la boo xam ne mi ngi dox di avancé nit ñi nag bu ñu buggee ndaxte politique moom sëlëm sa wujj la rek jigéen ñi xam nañ di may wax mooy xool kuy liggéey xool réew mu am jàmm nga ne amul jàmm àllarba bu ne nga ne damay woote marche nañu dem toj nañu dem yàq nañu dem dem naka sudul noonu te réew mi buñ ko bëggee defar ni ñu war mooy li Pape Mahawa wax sànq mooy ñàkk jëriñu ku ci ne fexe lu am ci métier yi nga xam ne état du Sénégal mi koy fayal ay doomam dégg ngeen ko léegi centre de formation yaa ngi fi jàngukaay yaa ngi fi financement yaa ngi fi li war mooy tàggat ndaw ñi orienté leen ba ku li nga bëgg ak fi nga bëgg a dem nga jël tegu ci yoon bi bu ko defee yàlla dimbal la nga egg foofu waaye nag opposition boo xam ne ñoom benn yoon rek lañ jël nañu yàq nañu rey ni ma ko waxee fii keroog di leen woo ci njëriñ boo xamante ne dafa ànd ak lor ndaxte njëriñ boo xamante ne ci li muy tàmbalee mooy bu ñu respecté benn institution nañu saaga suñu conseil constitutionnel nañu saaga suñu président nañu saaga suñu assemblée nañu saaga gendarmerie nañu saaga policiers yi nañu saaga sax ONG yi nañu saaga journalistes yi loolu du ñu bëgg lu baax ci réew mi ndaxte réew mi 1960 ba léegi sénégalais yaa ngi opposé wu di jongante ci politique di waxante li ñu xalaat ku ne far fa nga far waaye du tee ñu def ko ci jàmm voté ci élection sénégalais yi fal ki ñu fal ci ëllëg sa ñu dem liggéey ñun loolu lañu xam loolu mooy suñu tradition démocratique suñu tradition démocratique donc looloo taxoon ëttu ndaw ñi am solo buñ fi dikkee di leen wax li état bi def ci wàllu liggéey li état bi def ci jeunes yi war nañ leen fàttali tamit li nga xam ne moom mooy suñu ay tradition démocratique ñu ne ci biir champ politique bi di wër di waxtaan ndaw ñi bañ ku ñu nax li am solo mooy évolution bi Sénégal di am ndaw yi di mën a jàng ndaw yi di mën a liggéey ndaw yi di mën a toppatoo seen waajur waaye du ndaw yoo xamante ne dañ leen di woo naan leen nañ leen dem ñu toj nañ leen dem ñu yàq nañ leen dem ñu marche donc bu dimanche jotee ni ko Pape Mahawa waxee na ngeen tànn bulletin bu marron bi ndaxte Pape Mahawa bi boo ko ko waxee da nga am bopp fas waaye am na tamit ree ju neex ju ci ne muy réewu na Aminata Touré Mimi ndaxte seetlu ngeen campagne bi dafa am ñoo dañuy wër di saaga di menacer di teg fitna ñun nag dañuy avancer di teg suñu musique bu neex di waxtaan ak nit ñi mu dugg ci xolu nit ñi te bu élection yi jotee bu bës ba jotee defe naa ne bàcc yi dina gën a méttiwaat donc li war mooy ngeen am ràññee ndawu Sénégal dañ war a am ràññee waruñoo topp ñi nga xam ne dañuy xëy naan leen nañ dem marche bu ñu xëyee jël seen doom yi dugal leen ci ay oto di leen yóbbu école am na woykat bu doon wax naan boo boo boo doonee euh, nu mu tuddati boo yaroo te yeewoo borom barke nga dañ lay jëriñoo te jëriñ sa bopp ndaw Sénégal nag waruñu doon ñu ñu jëriñoo na ngeen am ràññee organiser wu xool list bi nga xam ne moo baax muy Benno Bokk Yaakaar autoroute yi gën a bëri train yi gën a bëri liggéey gën a bëri bay bi gën a baax avion yi gën a baax Sénégal jëm kanam wasalaam jërëjëf. Président Macky Sall n'est pas un homme de problème c'est un leader qui apporte des parce que ingénieur ingénieur li nekk ci boppam mooy toujours génne pro solution ci biir problème. maintenant mu génnee vision bu leer wan na naka ngay jóge ci vision bi ba dem ci action action boobu moo indi jeexital yi nga xam ni moo tax tey ndaw ñi walla mën a yaakaar war xeex pour système boobu pour su continuer parce que de notre côté ñii opposition bi dañu am ñetti paan paanu projet amuñu projet wax fa dëgg yàlla ñu ñeme nañu ñu indil ñu projet ñu weranteeg ñoom mais mënuñu ko donc y a eu pan du projet pan du leadership kenn xamul kan moo jiite pan de la méthode parce que dañuy waxtaan dañuy xëccoo duñu waxtaan ak askan wi dañuy wax lu dul dëgg duñu wax lu dul dëgg parce que dañuy manipuler donc ñooñu sóoraale wu ñu lu ñu fi bàyyi. ndaw ñi mën teg seen loxo pour ëllëg li ma bëgg jeunesse bi xam ko li président Macky Sall di def jeunesse bi ñoo ko moom am na phrase bu importante boo xam ne dafay signer ay réalisation mooy ceci est mon legs pour les générations futures jeunesse benn étape la rek ci biiwu nit nekk nañ ko weesu nañ ko léegi ngeen weesu ko problème yi ngeen di am commencé nañ ci ñenn ñi yor soxna fay loyer wut liggéey yóbbu doom hôpital faj ko xottil ko yëre julli dinañ ko dal te gën a metti parce que léegi booy li ngay daaj pour ñu dënd ko dafa seer donc war a jàpp ni gis nga yor réew dafa foo xam ne foo tolloo lu ñu bëgg bëgg bëgg changement il faut parfois avoir opposition bi fi mu toll bu ñëwee au pouvoir amagul njëriñ xalaatagul xamul yoon bi gisu ko amagul yeneen soo amee koo xam ne teg na yoon dina ko jox ci ay firnde nga koy gis danga koy bàyyi mu yeggal Il faut même élargir la problématique de l'université et dépasser le cadre de l'université Cheikh Anta En retenant d'abord ceci, en on n'avait que cinq universités. Aujourd'hui, entre et aujourd'hui, il y a de plus. En au niveau du campus. On était confronté à des conditions de vie un peu difficiles pour les étudiants, une sous-capacité de l'offre en matière de lit. yéen waa Université Cheikh Anta Diop mën ngeen wax ñaata pavillon yu bees ñoo fa aménager cadre de vie bi aujourd'hui boo rombee université même boo duggul dangay ngay boo duggee ci biir da ngay gën a kontaan ndax xol dafay sedd au delà de ça dafa am yeneen ñu fa def ci améliorer les conditions pédagogiques équiper laboratoire yi defar amphithéâtre yi gën a jox moyen l'espace pédagogique parce que souvent revendication yi ci campus social bi la doon jëm yokk nañu bourse yi amélioré nañu cadre de vie bi mais effort boobu ñu def moom la ñu def parce que boo leen seetloo ni ñuy gérer léegi bu njëkk ba benn moo nekkoon muy le COUD mais léegi pratiquement région bu nekk am na centre des œuvres bu fa amee université kooku c'est un seul niveau un seul aspect du renouvellement et du remembrement de l'offre éducative parce que enseignement universitaire dafa am lu ko wër di ko gunge mooy les instituts de formation les ISEP mooy les ENO mais surtout mooy les centres de formation à raison de un centre par département parce que président Macky Sall bi mu analyser problème mu emploi dafa indi solution boo xam ne fi muy jaar mooy employabilité donc yokk ko parce que capital humain mooy axe 2 bu plan Sénégal émergent fi nu bëgg a jëm il faut que ñu waajal ndaw ñi il faut que ñu tàggat leen te boo leen bëggee jàpp ci xayma budget Sénégal fi mu toll nii actuellement sorewul 6 000 milliards mais mën ngeen jàpp ni li jëm ci éducation boo jëlee formation professionnelle enseignement supérieur éducation c'est plus de 26 pour cent du budget kese ci éducation deuxième question bi mi ngi porté sur les financements sur la diaspora très bonne nouvelle pour la diaspora président joxe na orientation ni mu ko defee woon dans le cadre du FES am ay ressources yoo xam ne dañ ko dég jagleel diaspora bi dafay élargir espace de compétence su DER pour mu mun a financer la diaspora c'est vrai maintenant vous posez un problème technique qui est le problème de l'accès au financement et de la garantie le FONGIP peut le faire loolu mooy rôle FONGIP pour la garantie mais beneen problème bi amul structure de financement booy dem ñu ne lii rek lañ lay financer on finance à partir de ton propre projet première contrainte bi li mu mën nekk le niveau de financement demandé où il montage pour am garantie vous m'avez demandé une je pense que l'une des modalités par laquelle on peut régler et contourner ce problème ou le régler définitivement c'est que souvent on est trop dans des démarches individuelles je donne un exemple si le président décide mais je subventionne les tracteurs à hauteur de 60 pour cent 70 pour cent tracteur bi di war jar par exemple 15 millions donnons chiffre comme ça mais da lay leer ni benn agriculteur moom kenn benn paysan amul suffisamment de ressources pour am ko mais si les gens s'organisent en coopérative mën nañu bokk tracteur il y a un truc qu'il nous faut régler c'est dans notre tête souvent bëgguñu bokk suñu bokkee bari doole Si les gens sont ensemble, ils peuvent créer ce qu'on appelle les sociétés de cautionnement mutuel. Madame, on est 10, on met des ressources, et ce qu'on cotise peut servir de caution mutuellement pour chacun d'entre nous. Nous fait que c'est la garantie de l'État pour augmenter la capacité d'endettement. Parce que nous avons un mécanisme. Donc la bonne nouvelle, c'est que le territoire de la DER va s'élargir et s'ouvrir à la diaspora et aux Sénégalais de la diaspora. Et ça, il faut que ngeen xam on est pratiquement le seul pays au monde qui pendant la Covid a donné 12 milliards à la diaspora. On est le seul pays au monde qui mobilise des ressources publiques alalu askan wi alalu réew mi seddi ci diaspora et on est le seul pays au monde où dañu jël des membres de la communauté nationale mu nekk ay sénégalais ñii Afrique ñii Europe ñii Amérique ñii feneen delloo si leen dans la souveraineté nationale malgré le choix qu'ils ont fait de vivre ailleurs jox leen fukki député ak juróom